salaamaaleykum di rafetlu taxawaay bi président woote démb ak premier ministre am Seydina Ousmane Sonko ak seen membre de gouvernement sant ci borom bi mooy set setal bi ku ci ne fa a dem defe nga ko fa sant nañ ci yàlla bu baax yàlla na barkeelal président nga di ko woote woote jigéen ñi bu mu sore bu kanaal fetal ñi ko ci kàttanu borom bi néew ma inondation du am de waaye dana wàññiku ndox bu amul fu mu jaar rek dana mbëkk dem wut feneen fu mu jaarale boppam te amaana fa muy jaarale boppam du neex sénégalais yi te taamu woon nan fu ndox mi war a jaar ba ndox mi taamu faa jaar doomu aadama ñoo ko fàtt ci ay mbalit mbokk yi ñu gën a jàpp ci réew mi te bàyyi canal yi ni fat pëna du pour canal mbuusu ay xottu saako du pour canal ay der du pour canal boo ko defee day buuse te bu buusee yow mi nga xamante ne bi yaa nekk ci koñ ba la muy daj ci ay coono yaa koy daj aka nan la ñuy def mooy nanu focus ci réew mi te concentré wu patriote yi Jibi Gueye Ndiaye mu jàkkaarloo ak Antoine Félix Diome du combat Antoine dafee nekkoon yor réew mi di doxee ni ko neexe lu nexul senegal yi suñu borom ni ko lu mu mën a am ci àdduna nguur daam fu te wàcc na ku yéeg tey Bassirou Diomaye Faye ak kan Seydina Ousmane mu sell mi kon dogalu bi yàlla leer na foofu Antoine ak yëm daan def moom la concerné donte dara baaxu ci ci réew mi waaye nag suñu mbokkum jullit la Omar ibnu Watxi ñëwoon na pour rey yontu yàlla Muhammad Seydina Alioune jaayante ak moom loolu sutiwul Antoine Félix Diome comme daa wàccoon pour bëgg éliminer eh, Seydina Ousmane Sonko patriote yi ci boppam doon seenum Seydina taxaw ci kanamam ne ko du am yala suñu borom dogal ndam loola ci patriote doon wut am ko Antoine victoire bi mu ci doon wut amu ko ñu mujj ci defet ba moo tax mu dajeek ñi di saafonte ak ñoom sant leen suñu borom jërul naqarlu nana accompagner suñu ministre bi yor wallu mbay mi nana accompagner bi yor wàllu mbay mi ak sàmm mi di Mabouba Diagne en compagnie Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi président de la République en compagnie Seydina Ousmane Sonko mu sell mi jàmbari fàkk tëdd ji borom barrière or bi ci cité kër góor gi ginnaaw dogal borom bi ginnaaw nangu gu yàlla nangul sénégalais ah moo tax mbir mi am nag bu ragaloon baa muy warkat du si fii de mënoon naa mboxam bu mu waxtaan waaye dara àdduna jëralu ko ñu waxtaan ak El Malick mii te accompagné ko transport bi dox bala Fafana mi yor wàllu assainissement yi gis ngeen ko ak ñeneen ak ñeneen Cheikh Thioro Mbacké député Assemblée barke alxuraanul karim ñi accompagner nguur gi accompagner réew mi defar Sénégal mooy seen yitte. gënoon naa métti la waykat ba ba àll bi dina tàtt kenn ñi moo fi Cheikh Ibrahima Fall fi xusoon jàll kenn gunge wu moo fi patriote di ñoo xuus ja jàll gunge Ousmane Sonko ànd ak moom kon nan góorgóorlu te focus ndam lu rëy la leen borom defal heure daaw ñu ngi barikate ko sell ki Serigne Cheikh Saliou moo ko xarum tabaski heure ren ñu nekk ci pouvoir bi waaye lii doyul sant yàlla waaye booy xeex ak nit balam yoroon nga récupéré ko fat ko lam doon def doole jam amoon ba di la duma nga am ko mbokk yi liy jëru sant yàlla defet bi gën a rëy ci wa waa ko dund Sénégal 57 virgule pour cent nga gagné ko ko ci élection premier tour ci candidat boo xam ne ci kaso bi la génne lii du histoire lu ngeen liggéey la waxtaan ak sénégalais yi ba bi ñor leen waxtaan leen ak sénégalais yi gën leen a gónne sénégalais yi gën a jige sénégalais yi gën a i di faj soxla yi di accompagner sénégalais di leen wan liggéey te nu xirtal mbay mi jàpp ci te mbay mi pour mu dox dëgg-dëgg mooy nun sénégalais yi ñoo war a wàcc bay ko bu nu seetaan ban sénégalais yi bay nu nuy jol étranger yi di leen jox suuf si nuy bay